Luk saar fukk ak waxaat ay taalibeem ne leen. fiir yu yóbbee nit bàkkaar mënta ñàkk. waaye toroxte dal na ki koy lal. ñu takk doj wu rëy ci baatam sànni ko ci géej moo gën ci moom muy daaneel ci bàkkaar kenn ci ñi gën a tuuti ci ñii. wattu leen seen bopp. bu sa mbokk tooñee yedd ko. bu réccoo baal ko. te su la tooñee juróom ñaari yoon ci bés bi te ñëw ci yow juróom ñaari yoon ne la tuub naa ko nanga ko baal ndaw ya wax borom bi ne ko yokkal sunu ngëm borom bi tontu ne su ngeen amee ngëm gu tuuti sax niw pepp fuddën kon dingeen mën a ne garab gi bu deekul dem jëmbatu ca géej ga te dina def li ngeen wax kan ci yéen bu amoon surga bu beyi walla bu sàmmi ba ñëw ndax dafa ko naa kaay lekk déedéet xanaa kay da ko naan defaral ma reer bi takkul te tibbal ma ba ma lekk te naan ba noppi nga door a lekk te naan li surga ba topp ndigal ndax tax na mu yelloo ngërëm déedéet noonu yéen itam bu ngeen toppee li ñu leen sant lépp ba noppi dangeen a war ne ay surga rekk lanu sunu warugar lanu def bi muy dem Yerusalem ba tey yéesu jaar ci digg wi xaajale Samari ak Galile bi muy jub benn dëkk fukki gaane ñëw dogale ko ñu taxaw dànd ko di wax ca kaw naan yéesu kilifa gi yërëm nu naka la leen yéesu di gis naan leen dem leen woon seen bopp saraxalekat ya bi ñuy dem ñu daldi set kenn ci ñoom gis ne wér na daldi dëpp di màggal yàlla ak baat bu xumb mu dëpp jëm ci tànk yéesu di ko gërëm fekk nitu samari la woon noonu yeesu daldi ne xanaa du fukki yépp a wér ana juróom ñeent ña nag amul kenn ci ñoom ku ñëw gërëm yàlla ku dul doxandeem bi noonu yéesu ne ko jógal dem sëngam faj na la farisiyen yi laaj yeesu né ko kañ la yàlla di tëral nguuram mu tontu leen ne bu yàlla di wàcce nguuram ci nit ñi kenn du ko mën a teg bët duñu mën a wax ne xool mi ngi fii walla ma nga fële ndaxte nguur yàlla wàcc na ci seen biir noonu mu ne taalibe ya jamono dina ñëw fu ngeen di bëgg a gis su doon sax benn fan ci jamono ju doomu nit ki di ñëw waaye du ngeen ko gis des na leen ne mi ngi fii walla ma nga fële bu leen dem mbaa ngeen di leen topp ndaxte ni melax naan ràyyee ci asamaan di leeral gii wet ba ca gee noonu it la doomu nit ki di mel ci bésam waaye balaa booba faw mu sonn lool te nit jamono ji dëdd ko la xewoon ci bési nooyin dina xewaat ci bési doomu nit ki nit ñaa ngi doon lekk ak di naan di jël jabar ak a séyi ba bés ba noowin dugge ca gaal ga noonu mën ma ñëw rey leen ñoom ñépp dina mel it ni la xewoon ca bési loot nit ñaa ngi doon lekk ak di naan di jënd ak di jaay di ji ak di tabax waaye bés ba loot génnee sodom yàlla tawloo safara ak tamarax rey leen ñoom ñépp noonu lay mel bés bu doomu nit kiy feeñ ca bés boobee ku nekk ca kaw kër ga te ay basagam nekk ca biir bu mu wàcc jëli leen te it ku nekk ca tool ya bu mu ñibbi fàttaliku leen jabaru loot kuy wuta rawale sa bakkan dinga ko ñàkk waaye ku ko ñàkk dinga dund maa ngi leen koy wax ca jamono jooju ñaar dinañu bokk a tëdd guddi des na yóbbu kenn ki bàyyi ka ca des ñaari jigéen dinañu wolandoo des na yóbbu kenn ki bàyyi ka ca des taalibe yi ne yeesu fu loolu di xewe borom bi yeesu tontu leen ne fa medd nekk latan yi daje